génn sama kër di dem jëndi reer noonu laa génnee sama kër def 300 mètres euh, benn pick-up euh, gaaree jékki-jékki rek gaare sama ginnaaw maa ngi ci tali bi euh, ñeenti nit génn si ñëw ne ma monsieur Sagna vous êtes en état d'arrestation leen ah arrestation yomb na Sénégal de comme ça guddi mu ngi lëndëm man ne leen yéenay ñan ak lan moo tax ngeen may arrêté ñu génnee carte boo xam ne mun ma ko sax lire parce que mu ngi lëndëm mais mayu ma sax fu ñu ma fu mayu sax mayu ñu ma sax fu ma ko liiree ñu dugal ma en fait euh, ci oto bi euh, ma ne leen yéen li ngeen def sax wóorul parce que bandi yi ak voyou yi mun nañ def ni yéen mun nañ ñëw ne ñëw yi ci wetu nit ki mais kidnappé ko ne police wala gendarmerie wala dikk donc ça c'est pas de méthodes yoo xam ne euh, dañ koy rafetlu c'est du banditisme d'État état voyou mooy doxalee nii man maa ngi tudd Guy Marius Sagna am naa fi ma dëkk. lan moo tax duñ ma jox convocation man maa ngi tudd Fatima Mbeng am naa fi ma dëkk lan moo tax duñ ma jox convocation man maa ngi tudd Biram Souley Diop wala xaw ma Abbas Fall wala euh, xaw ma ne en fait neneen Assane Diouf wala Clédor ak ñoom seen maa ngi dëkk Sénégal lan moo tax duñ ma jox convocation il faut ñu arrêter sa banditisme d'état là il faut que d'accord euh, euh, état du Sénégal bàyyi en fait ces méthodes de voyou noonu lañ ma jàppee ñu jaar euh, xawma VDN jaar euh, xawma corniche et après ñu dugg en fait euh, dikk boobu ak léegi maa ngi nii en fait di soog a génn dama ne état bu defee yëfu sàmba booy dañ koy siwal banditisme d'état bi ak yëfu voyou yi foog état bi ñu bàyyi ko man dañ ma jàpp après ñuy xool waaw lan moo tax ñu war ma dugal kaso dégg ngeen ko li nga xam ne moom lañ ma doon toppee biir dikk bokkul dara bokkul dara safaan ba lañ ma wax au niveau euh, du du euh, du bureau du doyen des juges ay trouble à l'ordre publique xaw ma genre yooyu lañ ma doon toppee xawma dikk mais bi ma demee euh, en fait euh, jàkkaarloog euh, doyen des juges mais man damaa waaru parce que maa ngi naan mais attends question yi ma doon laaj dikk jotewul dara ak li nga xam ne moom lañ ma wax ne moom lañ may toppee fële ca fële ca tribunal. et donc loolu day rek gën a firndeel li nga xam ne moom mooy méthode de voyou moom mooy banditisme d'État bi nga xam ne mooy dox fii nga ñëw ñu ne la Guy Marius Sagna yaa bind sa page Facebook j'accuse la police de euh, d'avoir torturé ki nga xam ne moom mooy Pape Sarr commissariat Thiaroye yi yow Guy Marius Sagna yaa wax ne j'accuse euh, Seck Ndiaye d'avoir été assassiné par des policiers dans sa chambre yow Guy Marius Sagna yaa wax ne euh, j'accuse en fait euh, la police euh, sénégalaise d'avoir assassiné ki nga xam ne mooy Abdoulaye Timéra yow Guy Marius Sagna d'accord yow yaa bind sa page Facebook euh, euh j'accuse la police euh, xaw ma Elimane au niveau du commissariat de port noonu la commencé fàttaliku leen lan moo xewoon dafa amoon ay euh, ñi ñu jàppoon d'accord ñu génn commissariat central ñu dajeek ñoom le dimanche dimanche donc euh, je sais pas moi dimanche dimanche 15 genre yooyu dimanche 15 février ñu dajeek ñoom ñu ne ñu mais dañ leen doon torturer ñu ne ñu ah dañ leen doon laaj yéen euh, ndax joolaa ngeen yéen ndax Casamance ngeen jóge dañ leen dóor si xuur ngeen jéggal ma ci wax ji d'accord mais bi loolu amee fii la ñu defee conférence de presse ñoom ci seen wàllu bopp ñu ne lii lañ ñu laaj lii lañ ñu def ñun FRAPP nga xam ne ku ñu xam nga xamee ñu aussi lutte contre l'injustice et contre les violences policières ñu ne lii du dëgg du yoon pour sensibiliser pour artu pour naxarlu ak bañ itam li nga xam ne moo daloon jamono M23 mu am yaa ngi di fàttaliku ndem si yàlla de Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm policier la woon mais dañoo jàpp ne violence policière bu ñu ko baniirul dina am fu ñuy toll askan wi dina jéem a fajal boppam te askan bu demee bay fajal boppam musiba am na. donc fii la ñu toog di ko dénoncer le samedi 20 euh, bureau publique bureau des relation publique bu police def benn communiqué ne police sénégalaise mosul def torture te ku fi waxati ne police sénégalaise day torturer waaw ñu defante ko ak yow mais ci lañu def ay post ci suñuy page ne nous accusons la police sénégalaise d'actes de torture et de déni de justice ñu xool nag parce que ñun du ñu ñaaw ba pare ñàkk fayda du ñu boom di ñu toroxal di ñu noot ba pare ñu ne du ngeen ko fi waxee déedéet ku ñu torturer dañ koy wax ndaxte li ñu gëm mooy dëmm lu mu gën a bañ lu mu gën a bëgg mooy bu lay seeñu nga toog noppi dëmm lu mu gën a ragal mooy ku ko jeebaane dëmm da koy jeebaane or il y a des policiers il y a des policiers intègres il y a des policiers mais nag am na ñoo xam ne dañuy torturer ñoom ñoo torturer Adja Ndiaye bu Dakar Actu d'accord moo tax ñuy invité waat état du Sénégal déni de justice bi nga xam ne mu ngi ko imposer ces familles de victimes de violences policière de violences de certains gendarmes de violences de certains agents des forces de défense et de sécurité déni de justice boobu d'accord mu régler ko nous voulons la lumière nous voulons la vérité et nous voulons des sanctions waaw te ñu bàyyi di affecté euh, agent des forces de défense et de sécurité bu defee tooxi diw na rek ñu affecté ko mais affaire bi day nekk gangrène buy màgg boo ko defee Dakar ñu bëgg ko xaw ma mekki Toubatoul xanaa waa Toubatoul bëgguñu lu baax bu defee musiba Toubatoul ñu affecté ko Thiès xam xanaa waa Thiès bëgguñu lu baax xanaa waa Ziguinchor bëgguñu lu baax il faut traiter le mal par la racine donc ñu lay laaj maanaam genre Euh, question yooyu waaye tamit ñu ne Guy Marius Sagna yaa bind sa page Facebook que ce sera Pathé Badiane pour euh, le président Macky euh, pour pour le président Macky Sall et ses maîtres impérialistes ma ma ne ko maa ko wax man maa bind ne tous les jours ça doit être Pathé Badiane pour le président Macky Sall support de l'impérialisme et ses maîtres impérialistes lan mooy Pathé Badiane Pathé Badiane <clears throat> Pathé Badiane Pathé Badiane mais xare la woon boo xam ne suñu maam ku jar fàttaliku ku jar a roy Maba Jaxu Ba mais xare la woon boo xam ne da ko amoon ak larme coloniale française mu am ci ndam mais justice boo xam ne day naan benn citoyen lan moo tax ngay wax Pathé Badiane Pathé Badiane lan la est-ce que c'est un appel à l'insurrection mais justice boobu c'est une justice néocoloniale justice la boo xam ne bëggul sénégalais yi fàttaliku seen maam yu baax yi ma ne leen mais man éco je suis un produit de l'école sénégalaise comme sama euh, mais sama frère sama plus que frère Babacar Diop di wax di ko ndamoo je suis un produit de l'école sénégalaise école primaire dañu jàngal Maba Diakhou Ba bu ñuy lim les résistants dañuy lim Maba Diakhou Ba au nom de quoi tey jii nii quand on appelle à la résistance du ñu wax askanu Sénégal roy leen Maba jaxu Ba roy leen Aline Sitoé Diatta roy leen Yacine Boubou roy leen Mame Bamba ak ñoom seen waaw ñu ma ay waaw yow yaa wax fenn ne yow Guy Marius Sagna que tu as plan que vous avez un plan contre Macky Sall mais man ne leen d'accord léegi wan leen ma ko mosuñu ma ko wan moo tax nag nañu bàyyi di foowee les institutions ñu ngi naan xawma ma wéy nañu respecter les institutions on veut des institutions fortes bu leen yàq institutions yi mais lu toll ni dikk lu toll ni dikk ñu koy poser loo ay question yoo xam ne ay fen la yow Guy Marius Sagna yaa wax ne vous avez un plan contre Macky sàll ma ne d'accord balaa ma si tontu wan leen ma rek fi ma ko bindee fi ma ko waxee. jusqu'à l'extinction du soleil duñu ko génnee maa ngi ni ba tey foofu la laaj bi yem dafa am solo ñu wane yooyu pour wane le banditisme d'État et les méthodes de voyous yi nga xam ne moom la ñuy am waaye tamit ñun ñëpp ñu préparé wu xam ne saay bu ñu jàppee nii la ñuy doxalee et nous devons être prêts ba pare moytu bañ a tiit naan waaw wala déet parce que président Macky Sall pareeguñu ak moom. président Macky Sall pare guñu ak moom dinañu jàppaat bu ñu jàpp kenn commissariat wala gendarmerie ngay tiit waaw ñu naan ma ay way yow yaa wax benn Babacar est-ce que jot na cinquante mille francs waaw pour xaw ma une conférence de presse de quelle conférence de presse il s'agit parce que effectivement lundi 22 février mardi 23 février dañoo waroon am conférence de presse fii ñu ne ma Babacar boobu ban Babacar la ba pare d'accord conférence de presse boobu ban conférence de presse leen dikk ñii di luubal alalu askan wi yépp di sàcc alalu askan wi yépp ay directeurs yuy sàcc alalu askan wi ay ministres yuy sàcc alalu askan wi ñu nekk ci les trente pays les plus pauvres du monde dikk amul lu muy laajte lu dul ay pâté bajaan dikk amul lu muy laajte lu dul mais kan mooy trésorier FRAPP dig amul lu muy laajte lu dul une conférence de presse bu ñu waroon organiser fii avec des travailleurs licenciés dont des femmes enceintes te femme enceinte kenn waru ko licencier Bassirou Gueye toppatoowul loolu président Macky Sall toppatoowul loolu justice sénégalaise toppatoowul loolu dig toppatoowul loolu ñu naan ay ay Pathé Badiane waaye tamit ñu ne ma waaw est-ce que jot nga xaw ma audio clé ma ne leen ban audio clé seen ma ne leen ana ojo bi ñu déglul ma ko nee nañ xaw ma 59 secondes ma ne leen mais audio bi maa ngi koy soog a dégg clé seen woo nañu waxoon naa ko docteur Babacar Diop waxoon naa ko Aliou Sané waxoon naa ko waa Y'en a marre ne leen dañuy lancer seen plateforme dañuy lancer seen plateforme xaw ma naka le peuple waaw le peuple et que bu fekkee ça vous intéresse ñëw leen ngeen bokk ci plateforme bi ngeen fekkee conférence de presse bi j'ai informé docteur Babacar Diop waa FDS j'ai informé waa Y'en a marre Aliou Sané ma informé waa FRAPP nous n'avons pas donné suite à cette invitation waaw léegi ñu jàpp ma comme ça alors euh, mbokk yi bi en moins de trois ans bii mooy sama troisième mandat de dépôt en moins de trois ans bii mooy sama troisième liberté provisoire waxoon naa Samba Sall ne ko Samba Sall placé nga ma deux fois sous mandat de dépôt en moins de trois ans jox nga ma ñaari liberté provisoire en moins de trois ans ma ne ko vous et moi on sait où est-ce que ça va aboutir mu ne ma fan ma ne ko j'aurai une troisième liberté provisoire jërëjëf askanu Sénégal jërëjëf kilifa diine yi. jërëjëf waa M2D ma ne ko lii duñu mës a dem ci procès ndax Pathé Badiane mais je parle de ça pas pour bàkkoo ko parce que il n'y a aucune fierté à avoir été placé trois fois en moins de trois ans sous mandat de dépôt il n'y a aucune fierté à avoir bénéficié en moins de trois ans de trois libertés provisoires Nous avons honte. Honte des institutions de ce pays qui sont manipulées. au service de l'impérialisme et de ses suppôts. Manipulées au service de la bourgeoisie bureaucratique parasitaire de ce pays-là. Il n'y a aucune fierté. dama koy fësal pour wane ne ñii naan il faut faire confiance à la justice ma ne leen ban justice la justice mais qui me doit deux libertés définitives et maintenant qu'il me doit une troisième liberté définitive et à chaque seconde ñu war nañ ma mën a ñëw jël ndaxte xëy na y un élément nouveau cette justice là est-ce qu'on peut lui faire confiance déggoon ngeen ne ñu ne euh, bi ma nekkee kaso euh, def naa grève de la faim lu nekk nag dégg naa ko ndaxte kaso am na télé ah ku yaakaar ne xam naa dafa amoon ñoo xam ne dañoo jàpp ne du ma a génn ku ñu tëj kaso nanga xam ne dina mës a génn waaw lu nekk dégg naa ko may toog noppi rek di seetaan di reetaan lu nekk dégg naa ko ñun ñun ñii toog fii ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo am ngànt ñëwuñu dañoo bëgg Sénégal bëgg joo xam ne dañoo bëgg Afrique bëgg joo xam ne même buñ ñuy noot même buñ ñuy dóor di ñu buntu xatal di ñu def taatu neen ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy def taatu ne ñu ngi xeex ngir ñi nga xam ne ñoo ñuy buntu xatal dama dugg Cap Manuel ñu ne téléphone mais unité cent franc c'est pas possible te ñëpp xam nañ ne téléphone yi prisonniers yi di utiliser ay Illimix lañ siy dugal ñu ne 60 secondes cent franc boo wootee bu dagg sax ñu ne ñàkk nga voilà mais da ngay fay 10 minutes 10 minutes 1000 marchandises yi nekk ci boutique yi tous les prix sont surfacturés cent francs deux cent francs trois cent francs benn nen omelette dugal ko ci mburu cinquante francs quatre cent francs ci jamono coronavirus ci jamono ji nga xam ne prisonniers yi week-end rek la ñu mun jot ceeb sinon du lundi au vendredi dara mënul dugg ci kaso yi prisonniers yi nekk ay doomu askan yoo xam ne ils sont affectés impactés par le coronavirus jënd naa jënd naa pakku ndox six bouteilles xaw ma un litre trois mille feuille benn feuille blanche cinquante francs loolu yépp biir Cap Manuel mais ma ne ko bàjjan yi muy la directrice ma ne ko bàjjan yi lii mënul nekk ma ne ko bàjjan Xadi Euh, di nga wàññi njëkk yi di nga wàññi njëkk yi parce que détenus yi dañoo sonn man waxuma ne mënuma fay cent franc unité de waxuma ne mënuma fay cinquante franc déedéet mais li ëpp ci détenus yi Babacar Diop xam na ko ils sont issus des classes populaires des couches populaires nga leen di jaay benn omelette nen ak cinquante franc mburu quatre cent benn feuille blanche cinquante franc c'est grave la minute du téléphone cent francs ma ne ko di ko wàññi booy dugg ñu defaat la taatu nen bon ndeysaan sama jabar dina ma ne encore looy tudd sama taatu nen ngeen jéggal ma maintenant tuddu sama taatu nen pas pour man pas pour man je suis désolé ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en parle nga duggu ñu ne la ma defal taatu nen ñu simmi la ba nga set wecc man ne leen mais ça c'est un traitement inhumain et dégradant pas parce que man nga man ngeen koy def même ay nit yu am 71 ans on leur a fait ça man ne leen mais yéen bu nekkoon seen baay di ngeen ko def taatu neen ñu ne ma déedéet ba pare ñu jël say bagage di ko sànni ci suuf nga indi ceinture ñu sànni ko ci suuf nga indi calpe ñu sànni ko ci suuf ceinture yoo xam ne day bees te ñun ñëpp xam nañ ne du dem ci mbalit bi mais kalpe yoo xam ne day bees ñun ñëpp xam nañ ne du dem ci mbalit bi donc fu mu jëm ñu ngi nekk Cap Manuel ci jamono mbas mi képp kuy dugg kaso foofu ngay jaar d'abord donc c'est pour quarantaine man ñu dugal ma ci néeg boo xam ne maximum cinquante personnes la war a jël yanave cent cinquante bi ma fa génnee y en près de deux cents chambre une c'est la chambre la plus peuplée du Cap manuel chambre une chambre deux chambre trois man waxuma ne nañ ma dugal ci beneen chambre déedéet mais sama dugg bi lu tax mu am solo mooy sama yeneen dugg yépp kenn mësuma pakataas mais dama dugg chambre boo xam ne dañ ma pakataas pakataas mooy dañ leen di boole nii comme ay sardine nii ngay tëddee nii ngay tëddee toute la nuit nii ngay tëddee tout la nuit nii ngay def maanaam yow mënoo tëdd nii mënoo tëdd sur le dos mënoo tëdd sur le ventre de profil ngay tëdd waa ji sës ak yow mu am ay borom doole yoo xam ne ñooy def nii jël seen tànk di pousse pour que bu mu am espace parce que bu ñu ko defulee kenn du tëdd donc dañ ma ñu ma mandat de dépôt mais vendredi ba lundi paquetage mais lundi soir mënuñu woon pakataas xaw ma ndax dégg ngeen wax ji de dañ doon pakataas pour ñu xaj mais lundi soir c' était impossible de faire du pakataas on était 150. lan moo amoon sur les cent 150 ñu ne 40 yi pakataas ñeneen ñi toog waaw toog en rang serré da ngay toog ni accroupi keneen sës sës ci sa awra toog def en file ndaxte kenn mënutul def nii donc accroupi en rang comme ça. ma ne ko mais Badiane Khady la directrice en fait de la prison yow nekkuloo directrice maison d'arrêt de correction mais directrice maison des esclaves nga ma ne ko même ci gaalu même ci gaalu négrier yi mais nit yi dañ doon tëdd nii sax ma ne ko loolu di ko soppi benn di nga wàññi njëgu téléphone bi ñaar di nga wàññi njëgu boutique bi trois di ngeen bàyyi chambre une chambre de xool leen ni ngeen koy lijjantee quatre Euh, quatre mooy dugg bi bàyyi leen di sànni bagage yu nit yi di ko sàcc sax lay wax alors li am mooy mardi matin xam naa mooy bi ngeen yëgee nouvelle bi nous étions trois à entamer la grève de la faim mais grève de la faim bi lii la woon de dégg naa si lu nekk nag Guy Sagna dafa bëgg ñu traité ko en prisonnier particulier déet lii rek la woon lii rek la woon bàjjan xat yi bañ ñu jël ma ne ma la loi sera appliquée dans toute sa ñu dugal ma ci cellule boo xam ne un mètre de large trois mètres de long trois mètres de hauteur amul lampe amul dara d'accord da ngay dugg rek chaise bi mooy chaise anglaise enfin pas chaise anglaise mais non pas la chaise truc loolu mais l'autre chaise bon l'autre mais vous comprenez li ma bëgg a wax ñu dugg ñu ne ma simmeekul ma simmeeku mu des sama benn short ñu ne ma yoroo caleçon ci biir ma ne leen non ñu ne ma ma ñu simmi ma taatu nen ils m'ont mis dans une chambre infecte bu salté dand tilim noonu laa duggee ci biir chambre bi def fa 57 heures mais lii la woon de du woon leneen c'était ces la là maintenant si yokk leneen boutique bi prix yi ñu doon jaay ci boutique yi les gardes pénitentiaires prix yooyu lañ doon jëndee même les gardes pénitentiaires ses collègues étaient opprimés ils achetaient au même prix que les détenus donc ma def grève de la faim gars yi ñëw saraxu ñaan ma ne leen déet lijjanti leen lii le directeur euh, de l' administration pénitentiaire colonel Bokandé ñëw fa alxames je crois bu dee juumuma mu ñëw ñaan ma ne ma Guy Marius Sagna dama lay ñaan ñaanatuma la sax en tant que directeur de l' administration mais en en tant que mag ak dama bëgg nga bàyyi grève de la faim bi ma ne ko déet bàjjan xaj lu mu nekkee ci kaso bi du dëgg du yoon mu ngi noot jelmaan yi te jël man du ma la jël man du ma la un prisonnier à des droits mais le même jour le téléphone est passé de 100 francs l'unité à 60 francs l'unité mais du 400 francs économie est-ce que pour man la tous les prix ñu wàccee ko ba mu yem ci prix wu en fait l'extérieur loolu pour man la mais c'est pour wax ak tamit jël maan yi ma fa bàyyi ak citoyen sénégalais yi foo nekk ci senegal da ngay xeex injustice nee naa leen bés bu ñu ma jëlee sax dugal ma ci almer naa xeex injustice bés bu ñu ma suulee ci suuf naa xeex injustice loolu daal laa bàyyi laa bàyyi euh, Cap Manuel dégg naa ne bàjjan Xadi jëlee nañ ko fa elle a elle a été relevée de ses fonctions. Je ne suis pas fier ou content pour elle parce que loolu taxuma woon jóg mais kontaan naa pour détenu yi ma fa bàyyi moo tax ma ne tant que ñun sénégalais parewuñu pour ñàkk dara duñu am dara dañu dugg prison ne cell yenn saa yi sax ñuy jënd ay nekk waaw ngay woo sa mbokk kan moo xam directeur bi pour ñu dugal ko chambre bi walla chambre bee fekk la majorité des détenus ñu ngi torox nga toog noppi di seetaan waaw yow ñu lay indil ceeb gars yi di jënd ci boutique bi ba pare ñu naan lépp lu am ci boutique bi doo ko dugal pâte dentifrice lépp lu am ci boutique bi xaalis boutique bi fu mu jëm ci poche directeur bi donc moo tax tamit je profite de l'occasion pour gërëm ak sant ki nga xam ne moom mooy colonel bokkande ndaxte bu dul woon moom lii du am. il a fallu faire une grève de la faim de 57 heures pour que les droits des détenus soient respectés suñu militantisme militantisme carcéral ci la bokk mbokk yi bu ñu demee kaso ni ko Babacar Diop doon defee rëbës ni ko ñeneen doon il faut qu'on soit des militants carcéraux militant carcéral mooy koo xam ne bu ñu la dugalee kaso da fàtte sa bopp ni nga doon fàttee sa bopp ba nga dugg kaso noonu ngay fàttee sa bopp pour intérêt général ñi nekk ca kaso ba maa ngi gërëm di sant colonel Bokandé ah di wax ne président Macky Sall war na dem école colonel Bokandé ndaxte jàpp naa ne ay ministre am ak i directeur am yii di luubal alalu Sénégal ñu doon affecté wala relevé képp ku sàcc mais on aurait fait des bons importants waaye président Macky Sall ku sàcc mu defal la promotion ku luubal mu defal la en fait promotion ku toje mu du mais ki mu defal la promotion boo dénoncé mu tëj la donc ngeen xam ne kon loolu moo xewoon biir Cap Manuel deuxième grève de la faim bi mu commencé wul parce que dañoo ne suñu mbokk yaa ngi xeex ci biti mais ñun duñu toog ne nemm ne teg ne meng biir kaso ñuy toog ñu ñuy libéré ñuy toog ñu ñuy xeexal ci biir kaso bi dañuy xeex dañuy xeex et pas pour man gii Marius Sagna pas pour Assane Diouf mais pour surtout ndaw étudiants élèves yi nga xam ne dañ leen jàppoon nañ leen libéré loolu moo taxoon ñu waxoon suñu avocats yi lundi dañuy def grève de la faim yàlla def samedi kilifa diine yi waaw ñu dajeek waa M2D ne leen ngir yàlla seen marche samedi bi bu leen ko def teg leen ci suuf ah ñun itam dañoo am kilifa ñun dañoo am kilifa meluñu ni ñi nga xam ne dañ leen wax bu leen jàpp Karim ñu jàpp Karim. meluñu ni Macky Sall mi nga xam ne dañ ko ne bul jàpp xalifa Sall parce que IGE waxu ko mu jàpp ñun dañoo am kilifa suñu kilifa ay kilifa diine lañu suñu kilifa mu ngi tudd askan wi moo tax tamit ñu teg lépp ci suuf mais lundi boobu grève ñu de la faim ñu ne on va donner une chance à la médiation je n'exclus pas que l'État m'écoute ma mette sur écoute me suive et me file Mais si nous son les intérêts impérialistes, faire cela est inacceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que ñun mën nañ nekk euh, loo xam ne day gaañ askanu Sénégal maanaam bañuñu état di mobiliser ay jumtuwaay pour déglu suñu ay téléphone pour lire suñu ay téléphone mais na ko jaarale yoon benn ñaar na ko def pour njëriñu askanu Sénégal na ko def pour njëriñu askanu Sénégal mais bu fekkee dama dem dikk ñu ne ma yaa envoyé et c'était un message WhatsApp yaa envoyé diw est-ce que jot na cinquante mille est-ce que ñu ngi waajal conférence de presse suba ça veut dire que ñu ngi liir samay message procureur de la République amul lu muy def lu dul liir des messages privés nous avons un procureur voyeur alors que askan baa ngi ci jafe-jafe mais liir les message des gens les mettre sur écoute dafa war a am yoon dafa war a am dafa war a jaar yoon dafa war a am réquisition mais lii li ñuy def nii du dëgg du yoon du dëgg du yoon moom la ñuy def ñun ñëpp moo tax ça ay weer ay at ñu ngi naan président Macky Sall bàyyil di mettre sur écoute les citoyens sénégalais mais plutôt écouter le peuple sénégalais. arrêtez de le mettre sur écoute et écoutez le peuple sénégalais pour génne Sénégal ci ndóol génne ko ci jafe-jafe ce n'est pas en mettant les citoyens sénégalais sur écoute mais c'est en écoutant les profondes aspirations du peuple sénégalais voilà donc lii laa bëggoon wax euh, mbokk yi